dara ndaxte yóbbante la rek boo xamante ne dinañ ko defee nañ ko war a defee waaye dañuy tàmbali par njëggalu ci retard bi nga xamante ne am na parce que dañ leen joxoon rendez-vous ci 16 heures mujjuta jàll ensuite ñu ne leen 18 heures ba mu am retard bi mu am ba en ce moment la ñu mën a def déclaration yi nga xamante ne moom lañ mën a def waaye mbokk gannaaw bi ñu annoncé par stratégie sur la page du président Ousmane Sonko par stratégie li nga xamante ne mooy sa déclaration gis nañu loo xamante ne yéem na sax ñu koy gis ci réew mi ci nit ñi ni ñu taxawee ngir bàyyi ko xel ngir nit ñi ni ñu soppee président Ousmane Sonko ngir di ko xaar ngir déglu ko waaye mbokk yi ca boobu jamono Macky ci boppam. actionné na lépp loo xamante ne na ne bu ko yëkkatee mën na dal ci ay gor def nako il avait commencé à mettre sens dessus dessous fële nga xamantene moy prison Cap Manuel liko tambalé ci kaw ba ci souf ñëpp mu na seen dundu parce que tout simplement japp na ne kat yaay une complicité bo wara tax président Ousmane Sonko mën def discours parce que mom loolu la yaakar te loolu la mënta muy kilifa go xamantene wo ku ne ñi nga xamante ne ñoy les pénitenciers ñi nga xamante ñoom ñoy directeur ñi nga xam ne ñoom assistant ku ci nek nga bëgg koo yóbbu laabi parce que japp nga ne kat amna un prisonnier spécial qui s'appelle Ousmane Sonko bo xamante gis nañ ci page am ñu ne day def une communication lolu ce n'était qu'une stratégie bo xamante dañ doon wan Macky Sall ne ko yow do fi dara ci réew mi jaroo fi tous te jaroo fi dara te yéen xam ngeen ko waye mbir mi yamul ci lolu kep kilifa yi ndaxte dafa am décision bo xamante ñun jël nañu ko muy décision bo xamante nak mom lañ leen jox tay bo xam dina ko liir ñun ñëpp ñu dégg ko xam képp ko xamante am nga cofeel ci ki nga xamante mom moy Ousmane Sonko am cofeel ci képp ko xamante gëm nga projet bi mu yor mëna na réaliser wu xamal décision bi moy la décision bi nga xamantene mom lañ mujjé jël tay ñaan sénégalais yépp ñu top ci à partir de demain lundi 20 novembre 2023 mbok yi kii nga xamantene modi gi Guy Marius Sanya. ak ki nga xam mom modi biram di ak Abbas Fall ak Elage Malik Ndiaye dañoo bolo def lu ñuy tuddee déclaration commune déclaration bi nag lii la wax yéen sénégalais yi nga xamanté yeen nek ci bir réew mi ak yeen ñi nga xamné yeen nek ci diaspora bi Jotna tay ñu dem ci li ñuy tuddé suñu phase deux ñaareelu phase bi nga xamanté né mom lañu def mu nek suñu plan ci ñaareelu phase boobu dañoo ñaanon képp ko xamanté

ñawte fi ñu fi def ñu génné ko fi tégaat fi régime bu bess tak bo xamantane projet bi nga xamné mom le président Ousmane Sonko mësa yor mësa gëm mo fi dox ci walu wowo déglu ngeen leen bu baaxa baaxa baax ñu ngi leen remercier ci seen confiance ñi nga xamné nak lañu la ñu adversaire tay du mënees leen tuddé ay ennemi ndax seen taxawaal yi lu ne def nañu ko lépp lo rek état moko amé won ci kattan ak doole utiliser nañ ko ngir djema a ki nga xamantene moy président Ousmane Sonko waaye yak likat kat liñ ko fiñ ko jaarale moy ci walum justice parce que japp nañ ne fofu lañ mën jaar ngir gagner temps pour empêcher président Ousmane Sonko mu nek candidat waye yak gogou mu duñ mënuñu ko réussir ndaxte président Ousmane Sonko tay nekatul nit kessé waye c'est une conscience nit la ko xamantene sénégalais ñoko gëmal seen bop bëggal ko seen bop lolu ngeen ngeen gis mu am ay ping pong judiciaire tey jii nii buñ jógee ci justice bi tribunal bi buñ fa jógee dem ci benen tribunal amul ci kudul juge Sabassi Faye amul ci benn juge bo xamantene jël nga sa responsabilité en tant que juge bu honnête pour wax li nga xamantene moy deug ci mbir bi gis ngeen li nga xamantene mo xew fele nga xam ne cour des comptes ci loolu ñu gis ne ñi nga xam ne tey ils sont complices ci wàllu woowu ci direction générale des élections ak ministère de l'intérieur parce que nous ñoo fexé kat ba qui ki nga moo président Ousmane Sonko bu candidat té day porter projet PASTEF 11 décembre nous ci dépôt de candidature te bobu batay tey ñu président Ousmane Sonko sax mu mën retirer ay fiche de parrainage am lu dul di defal li nga xamné moy pong pong judiciaire ngir bañ mom mu bok ci élection yi. légui nak ngir mën ut indi réponse ci lolu tontu ci lolu texte stratégie bi nga xamantene moy tax ñu mën jot ci nguur gi gannaaw ba nga xamantene biram soulay job Diop Guy Sagna Abbas Fall ak El malik ndjay waxtaan nañu ñoom seen biir gannaaw bañu ñu ñu dem valider ko. ci président Ousmane Sonko mu validé ko appuyé ko ànd ci ak ñoom ne leen lii xalaat la ànd naa ci ñoom nee nañu ñi ngi ñaan sénégalais yépp ku mu ci mënt doon ak foo mënti bokk ñu préparé wu lancé li nga xamante ne à partir de demain lundi 20 novembre 2023 lii nga xam ne mooy suñu campagne de parenage campagne de parenage boobu nag kiñ pare parrainé kenn képp la kese kott dong le candidat Basirou Diomaye Faye l'année candidaté à partir de demain lundi 20 novembre 2023 mooy nek candidat au projet Binga nga xamante ne ñii di Diop Guy Abbas Fall El Malengay, Ndiaye gannaaw président Ousmane Sonko ànd nañ ci kon Bassirou Diomaye Faye à partir de demain lundi 20 novembre 2023 Inch'Allah. Nous sommes parrainés à J yi nga xamante tay tey ni ñetti semaine képp lañu ci am ñun wa PASTEF ñun ñi nga xamante tay tey ni amna luñu gëm ñun ñi nga xamante tay tey ni projet bi ñoko ko yor dañoo bëgg mu nekk réponse bo xamante tontine woo xamante ne am dans l'histoire politique dañoo bëgg a wane ne Sénégalais yi dañoo gëm projet bi dañoo bëgg a wane ne Sénégalais président Ousmane Sonko lañu gëm dañoo bëgg a wane Sénégalais bëgg nañ changement mais dañoo bëgg aussi Sénégalais ñëpp jóg andado def parrainage bu muccu ayib mu am benn fenn foo xamante ne fa lañ war a yem porte à porte këroo kër quartier par quartier commune par commune département par département région par région nañ wër fépp ñu pare ne ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye parce que aujourd'hui mooy ki nga xamante ne moom lañu choisir comme candidat ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy régime Macky Sall bii seen volonté ak seen bëgg-bëgg dañ leen koy opposé dañ leen di jàkkaarloog ñoom par lan cofeelu peuple bi bëgg-bëggu peuple bi bëgg-bëggu askan wi ci li nga xamante ne moom la ñu bëgg ngir Sénégal mën a jëm kanam moo tax parrainage bii li ñu ci bëgg mu nekk parrainage bu mucc ayib parrainage boo xamante ne kenn mësu koo gis dans l'histoire politique du Sénégal mu nekk parrainage boo xamante ne day wane ne ku ci nekk da def si sacrifice li nekk sa xol nga yebbi ko ci parrainage bi ba mën a parrainer ki nga xamante ne moom mooy le candidat def ko ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye pare parrainé ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay tey jii nii mooy ne ki nga xamante ne moom mooy le président Ousmane Sonko parce que nag xam nañu ne loolu mooy seen bëgg-bëgg yéen sénégalais te xam nañ ne toll ngeen ci ay millions yoo xamante ne bëgg ngeen loolu kon li ñu bëgg mooy des centaines de milliers de parrainages wala sax ay millions wu yoo xamante ne ay signature la yoo xam ne da koy jox te du am doublon ku ci nekk nga parrainé kenn benn yoon def ko. ngir ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay yéen ñi nga xamante ne yéenay sénégalais yi ñii di Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick nee nañu pare ne ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay firiwul ne dañoo bàyyi président Ousmane Sonko candidature mukk waaye nag ñëpp xam nañu ne président Ousmane Sonko dina xeex ba keroog. dernier suuf souffle maanaam nooy kem gu mujj dina xeex ngir réew mi mën a am jàmm parce que moom nekkul ci ay compromission waaye nag pare ne ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye mooy jéem a fexe ba Macky Sall échoué Macky Sall li mu bëggoon mu ñàkk ko Macky Sall jóge ci réew mi ak régime tey jii nii foofu lañ toll moo tax ñun fi ñu toll mooy ñu jéem a pare ne ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El gannaaw bañ ci amé ndigalu ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko ñu ngi leen xamal ne candidature président Ousmane Sonko ba tay kenn écarté wu ko ñu ngi leen xamal ne lépp lo xamante ne mooy état ci walum justice ci walum administration bi nga xam ne Macky Sall utilisé na ko ngir jéem a Ousmane Sonko du ko tax am ndam ay avocat wu président Ousmane Sonko xarañ nañ xarañ go xamante ne ñoo ngi jàkkaarloo moom te dinañ continuer di def. waaye ñu ngi leen leeral di leen gëmm la di leen xam leen la di leen assuré ne këf yeneen parrainage yi nga xamante ne am na fi mooy parenage élu mooy parenage député yi am na fi tam nee na yooyu itam ñoo ngi ciy taxaw di xaar bu baax a baax a baax buñ ci waree pare ne président Ousmane Sonko buñ ko amee rek incha allahu rabbi pour mu war a nekk candidat rek dinañ ko ci pare ne bu baax a baax a baax ba nekk suñu candidat moo waral. chaque fois bu ñu jàppee ne war nañoo parrainer kenn koo xam ne rek président Ousmane Sonko moo ko choisir incha allahu rabbi loolu da ngeen ci jot waaye fi mu ne nii li ñu ba nga xamante ne waxtaan nañ teg président Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye fay mooy ki nga xamante ne moom la ñuy parrainer waaye président Ousmane Sonko nag ñu ngi taxawandi di xaar kon na ñëpp topp li nga xam ne moom mooy parrainage pour Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko ñu xaarandi parce que parrainage yu élu yu député yi mi ngi fi. loolu moo waral yéen ñëpp dañoo bëgg ngeen jóg nag am taxawaay bi nga xamante ne moom lañu ñu war a am dem defi ji lii nga xamante ne moom mooy suñuy activité de parrainage pour ñu def campagne de parrainage bu mucc ayib boo xamante ne kenn mësu koo gis ci biir réew mi tey jii nii régime Macky sàll mi ngi nekk ci ay schéma ci ay tactique waaye ñun itam ñoo ngi nekk ci suñu xam-xam ak gëm ne sénégalais yi ñun la ñu àndal te incha allahu rabbi ñun ñooy am ndam ci kaw Macky Sall ak régime am ndaxte nag ndam li tax ñu yaakaar ko mooy peuple sénégalais bi ñun la àndal ndam li lu tax ñu yaakaar ko mooy peuple bi dafa gëm espoir te peuple bi dafa gëm ne projet Pastef bii moo mën a def réew mi peuple bi dafa mooyu ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall ak régime kon yéen askanu Sénégal yéen ndaw ñi ci boppam ñoo ngi ñaan

kon na ñëpp jóg dem waajal parenage dem parrainage ji kii nga xamante ne moom mooy le candidat Bassirou Diomaye fay te nag ñu def ko ci en un temps record parce que trois semaines la ñu am waaye dañoo bëgg am nombre de parrainage boo xamante ne mindeef mosu koo am ci réew mi te bu ñun buñ ci paree mindeef dootu ko gaaw a amaat ci réew mi jërë ngeen jëf lii daal mooy li nga xamante ne mooy déclaration biñ leen doon waajalal incha allah ñii ma nii dinañ ñëwaat def seen déclaration ci benn conférence de presse boo xamante ni yéen di ngeen ko mën a déggaat waaye tey jii nii l'urgence le plus important l'information la déclaration li ñu leen jox mooy à partir de demain lundi 20 novembre na ñëpp xam ne ñun ca lañu doon suñu parti suñu projet jóg nañu ngir waajal li nga xamante ne moom mooy parrainage bi liggéey ci parrainage bi commencé parrainer kan la ñuy parrainer kenn la képp kott dong muy Bassirou Diomaye fay moom mi nga xamantene tay candidat la à l'élection présidentielle de 2024 jërë ngeen ci and bi nga xamné and ngeen ko ak Jotna Media Group di leen wax ne rek inshallah rabbi ci mbirum parrainage yi dinañ ci and ak yeen toutes ces trois semaines là pour lepp lo xamantene mo ci actualité ñu jox leen ko en un temps record jërë ngeen ci and bi nga xamné and ngeen ko ak Jotna Media Group